xasaayidi min mujizaati almuntaqa salla alayhi man hadaahu wantaqa xasaayidi min mujizaati almuntaqa salla alayhi man hadaahu wantaqa haajat xasaayidi qalba kulli man lahu saadatan walin xaadal aman asalaamaaleykum mbokk yi bàyyi xel Info 7 TV ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci ànd bu rafet bi nga xam ne yéen koy ànd ak seen bi di Info 7 TV euh, tey nekk le 13 juillet euh, alxames dëpp ak euh, bi nga xam ne Serigne Mountakha Bassirou Mbacké digle na ko ci dëkk bu sell bi di Touba ñu ko fiy amal mën nañ ni ñu ngi fii ci résidentiel bu Serigne Touba Cheikhoul Khadim mën nañ ne ngeen gis daayira yi ak mbokki jëli ak taalibé yi yëpp mën ni fii nag toggkat yi ñoo fi féete ngeen gis waañu noonu suñ ginnaaw yëkkati nañ li nga xam ne mooy añi léegi waaye xam seq ñoom ay waxtaan euh, ci bis bi nan lañ gisee nga xam ne ci bisu xasida bi ginnaaw ci suba ba léegi bañ ko commencé lan la ñu ci mën a wax ngeen wéy di ànd ak info waxee ba léegi ñu ngi ci résidentiel euh, Serigne Touba Cheikhoul Khadim waa dal jaam xidma nag lañ fekk fii fa see seq ak ñoom ay waxtaan ku baax ki maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay la maam Thierno. fu ngeen bàyyi ko. ñu ngi bàyyi la. kuréelu dal jaam xidma bëgg tey ngeen ñëw teew fii nekk ci liggéey beeg bagage yi loolu boobu ba ngeen ñëw wax. Ah, di kontaan baax ci nekk gën fi nekk ànd ak liggéey bi waa Hizbut Tarqiyyah waa Ahlu Café ànd ko waa Abrar santaat bu baax euh, mbokk yi di leen ziare bu waat bu baax di leen ñaanalaat jàmm ji yaat di ko sàkk ci yéen ah wax nag liggéey bi kat nii dong la waaw comme ñun moom dañuy doog a tàmbali moom yal na yàlla ubbil ñu buntu wërsëg yëpp rek ci barke Cheikh Ahmadou Bamba ba xam ne lépp loo bi ban mission lay dox ci biir kër gi nii. mission bi ñun ñoo euh, fomp maanaam di ménage wàllu lépp luy set setal rek dañ nga def ci biir kër Serigne Touba gi. mën nañu ci ménage rek ngeen yem wala bépp liggéey boo xam ne am na ci kër gi rek. bépp liggéey boo xamante ni am na ci gi rek. lu ndox meek euh, ba ak lépp dañ koy def ñun lépp loo xam ne daal mi ngi ci biir kër gi rek te koo liggéey rek incha allah dañ koy bi ba ngeen xëyee ba léegi liggéey bi ko taxawoo. waaw ñu ngi ci nekk di seddale ay café di seddale ay meew di def euh, comme na mu waree rek ay ndox ak yëpp rek lépp loo xam ne murid dañ koy soxla rek ñu ngi koy def fii. mën nañu kuréel bi fi ñu toll nii fan la nekk. kuréel mi ngi Touba Madiana mhm. Touba Madiana mën na ni tey di bisu xasida bi nga xool mu fees dell bu noonu am na kàddu yoo ci wax. ah ñun kay dañuy santaat yàlla rek te xam ne lii moom nii rek la liggéey euh, liggéey sëñ Tuubaa moom nii rek la waaw ah, te lii képp koo gis xam ne liggéey sëñ Tuubaa la boobu ba léegi ñii ngi jàngi da ñii di jàng alxuraan ñii di sikar waaw fa tabaarakallah ñu sant yàlla bu baax kay. kuréel bi képp koo xam ne fi mu toll nii bëgg nga cee bokk nan ngay def kon doon waaw kuréel bu fekkee da nga cee bëgg a bokk am na ay carte membre carte membre ci ngay ñëw dagg inscrire boo ko defee danañ la jox programme bi nga xamante ni euh, moom moom la dal jàmm làmbool waaw bu fekkente ne arrangé na la nga bokk bu fekkente ne arrangé la nga xool leneen. ndax yéen yëpp ndaje ngeen di dem wala ndaje yi nga xam ne moo jëm ci wàllum Touba rek ngeen di moo xamante ni soxla nañ fa daal jàmm rek incha allah buñ ñu fa euh, contacter ñu teew fa incha allah. ci ndaje diine rek wala ndaje politique rek. non non ndaje diine rek lan ko lan ko commencé gun. waaw bu doon am na kàddu yooyu tàggatoo lan lay doon nga. lancé wàlla appel ñi nga xam ne ñoom nga bokkal kuréel bi pour ñu gën koo taxawoo waaw di leen wax ne ñoom waa dal jàmm yëpp rek pour ñu gëmaat seen bopp maanaam seetuwaat seen i seen seen mbir gën a amaat pasteef ci mbir mi waaw te xam ne kat affaire yi moom nii rek la demee Hizbut Tarqiyyah yi ngay gis ni ñi am lii ñu am tey ba ñu commencé ci benn lan commencé waaw ba tey gis nga ko macha allah yàlla na yàlla lafal cat waaye tamit di gërëm site bi tamit di Info TV. Info 7 TV. ñu ngi koy ñu ngi koy eh, ñaanal baax waaw télé bi jëm ca kanam a kanam a kanam daraja Cheikh Ahmadou Bamba am na kaddu yooyu lancé pour une population yi nga xam ne ñu ngi ñëw ci dëkk bu sell bi di Touba rawatina ci grande mosquée bu Touba pour comportement bi ñu indi ko ci fii lan nga doon ah comme di comportement woo rek comme ni nga xam ne noonu lañ ko bëggee rek waaw eh, dañ koo bëgg col gu yiw waaw comme noonu rek lañ ko eh, bëggee waaw di ñaan ñi defee ko noon ñu ngi lay sant di ñu ngi lay jaajëfal bu baax taw weex alaaji Njóob ñi xam la ne liggéey bi tax ñu jug ba dëgg yàlla lépp sëñ bi la sa sëñ bi yaakaar naa ne ñun dañoo bëgg loolu di ñeex ndaw ñi ñu gën a góorgóor bu baax a baax ci liggéey sëñ bi rawat na yow mi yow mi xam yaa ngi diwaan Touba ndax boo nekkee boo nekkee diwaan Touba war ngaa mën a gën a liggéey sëñ bi yow mi xam sëñ bi daa jege am ñoo xam ne dañu jógee dëkk dëkk comme ay Dakar ay Louga ay Thiès ñoo ñëpp dañu jógee dëkk a dëkk di ñëw fii pour liggéey sëñ bi kon yow mi dëkk bi dëkk bi war ngaa mën a wane preuve pour xëcc nit ñi ñu gën a góor ci liggéey sëñ bi def mbokki internet yu info 7 comme ni ñi ko waxe woon bunt bi ak samay naataango ñu ngi wéyal bis bi nga xam ne moom la Cheikh Mamadou Mountakha woote muy bisub xasida yi ñu ngi nag fi nga xam ne mooy kër Cheikh Salihou Mbacké fi nga xam ne ni nag tey ji dong yi nga xam ne ñoo jaaroon ci daara ji nekk xel xam nekk fi di fi amal liggéey bi am am solo rawatina fi nga xamante ni mooy ci bi kon nag jamono ji ñuy wax ak yéen ñu ngi fi lépp loo xamante ni xew na fi ci waañ bi ñi nga xam ne ñoo ko seere nan lañ koy doxale lépp dinañ seq ak ñoom ñi nga xam ne ñooy kilifa yi waxtaan yi yaatoo yaatu kon gaañ yi bi ngeen toppee si kanam ñu dugg jëlal leen réaction yi nga xam ne jëlee nañ ko fii ci waañu kër Serigne Saliou Mbacké si bisub xasida yi kii internet yi comme niñ leen ko waxee ñu ngi fi nga xam ne mooy kër Serigne Saliou fekk fi jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk fii ci waañ bi ñu ngi kii di Serigne si euh, Abdoulahat kilifa gi ñu ngi lay ne salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibi yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax kenn ku ci nekk sa tur ak si sant tey jiitee ci nuyoo bi ak sant bi sunu jëwriñ di sunu sëriñ di suñu xalifa di sunu lépp di sëriñ Mountakha Mbacké Bassirou di ko ñaana suñu borom yàggal ko fi tam may ko wér ba lépp lu mu naa la liggéey ci yoon yi mu liggéey ci lu kawe njortu ci barkeb sëriñ Saliou ndax euh, lii lépp moom la mbégum jaam ñi ñëpp moom la tey boo ñëwee Touba tey euh, tubaarkàlla macha allah dëkk bi fees na dëkk bi bari na mbooloo lépp jëmmam ji la kon ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu di wér ngir liggéey sëriñ Touba bi ndax tey foo xool ci dëkk bi rek wàcce nañ fa ay kaamil yu bëree bëri wàcce nañ fa ay limu xasida yu bëree bëri kuréelu Baye Fall gi tamit ñi ngi ci biir dëkk bi langoog jumaa ji ñoom itam ñi ngi ci yitte yu ma sëkk gannaaw bu loolu jàllee tamit dañuy santaat daayira jàmbaari Xelkom bu Serigne Saliou bi nga xamante ne bii ne ñoo wundu lii lépp tey fii ci kër Serigne Saliou di keppaaru Serigne bi ak barab ba ak Xelkom ñu ngi ciy jiital jëwriñ Serigne Saliou Fall jàmbaari Serigne Touba ji feggoog ñun nii su suñu loxo càmmoñ bu loolu jàllee tamit ñuy santaat bu baax jëwriñ Serigne Khadim Fall barabu Serigne Saliou di sunu jëwriñ di sunu lépp tey lépp moom la muy jëwriñ Serigne Saliou nga xam ne moo nu jiite ci waañu jiite ñu si lépp te jamono ju si nekk muy guddi muy bëccëg muy naaju tàng muy lépp jamono ji nekk mu ànd ak ñun xamut heure naaju tàng na wala jant bi sona kon lépp moom la gannaaw bu loolu jàllee tamit dañuy rafetluwaat bu baax ndigal li ndax ñun ay murit lan te murit bu si nekk rek li war ci yow mooy déglu ndigal te jëfe ko te ñuy sàkku jamono ji nekk ñuy taatan ndigal ci Cheikh Mountakha te di ko jëfe foofu lañ ci toll ndax ñun jamono ji nekk li ñuy déglu mooy ndigal te ndigal bu xasee jóg rek moomatuñ suñu bopp kon loolu moo waral suñu jataayu tey bii tey waral xéewal yi tey waral lii lépp nga xam ne tey dëkk bi foo teg sa tànk tey fees na kon loolu moo doon ndigal li ñuy ñaanal Cheikh Mourou Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te wér yàgg liggéeyal ku tedd ki Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké ndax ak yàggam fi kan mooy suñu njëriñ kon ñu ngi koy ñaanal Mbacké Balla yàlla na fi yàgg loolu te wér ci barke Serigne Saliou a ñëw ci kees gi nga xam ne mooy kees Serigne Saliou Mbacké di kees gi Serigne Touba bindee Matlabul Fawzayni fi la ka njaal gi fekkoon bind ko te euh, mbind ma yàqul raful dara sikku ci fii ko Serigne fii la Serigne Touba nekkoon ba njaal gi fekk fi tey nag dongay turbe yi ñun ñu taxaw ñun ñi nga xam ne ñooy jàmbaari Xelkom yaakaar naa ne bu ñu tuddee wàññi donga ñett lañ ciy wax wala ñaar ñi ci des ñëpp xaaj bi ay soppe lañ waaye ñoo dajale seen i ñaq ak seen i fukk ak seeni i jaayante ko ngir siggil kër gi tey ndax Serigne Saliou day wéru nañ ne te bu ñëwaatoon jamono nii rek la bëgg tey kër gi saa ne mbokk mbokki taalibe ñu leen di berne di leen jox xéewal yi kafe gi tàng ndox mi sedd kenn ku nekk di berne waaye nag jàmm daara ji day jàmbaari Xelcom daara jàmbaari kom joo xam ne daa cosaanoo suñu waajur si dal bu mag bi ba wàcc suñu loxo loolu mooy waañu mag bi di xel Xelcom. waa fondation bi moom daanaka euh, seen seen mën nañu seen i programme bëriwul parce que mu mel ni ab ziar la ñu am bisub xasida gi ak bis xam ne moom la ñuy waajal muy màggalub Kazu Rajab moom mooy seen mooy seen loolu mooy seen tey jii nii nga ne ci jiite jëwriñ ñi ngeen ne ci liggéey bi suba ak léegi si ndekki ngeen ko dooroon ba yegg ci añi ak reer bi nan lay demee fii nii wala bu ngeen jógee ci añi da ngeen di tàggat. waaw mu mel ni ndigal li moom dafa mel ne buñ ne ginnaaw julli tàkkusaan rek la ñuy yeewee te am murit moom mënut a fëtt ndigal mu mel ni dañ fi mu toll nii ñu ci cëppaandaw loo xam si daanaka raxas suñuy matériel rek di xaaraan ndigal pour ñu sóobuwaat ci. te xam ne murid amul lenn lu muy tiit wala lu muy ragal surtout fondation Sëñ Fallou nag. suñ taxawaay ci waa ñun mooy ñëw rek fa seenee liggéeyal sëriñ sëriñ bi ndax ñun amuñu lu dul sëriñ bi te bu wootee rek lépp luñ jàppoon nuñ ko war a dagg ñëw kon ñu sax ne bañ xëyee ba tey ñoo ngi fi di jëfe ndigal rek waaw. tey jii ku leen gis fii suba ak léegi liñ fi togg ci ay cin bëri nañu ndax ëpp na faneeri mbana loolu noonu liggéey bi nan lay demee kañ ngeen ko dooroon ci guddi gi la wala da ngeen xëy nekk ci liggéey waaw liggéey bi moom démb lañ ko commencé woon démb si guddi lañ commencé defar yëpp nga xam ne biñ xëyee rek dañoo taal waaw moo tax suñu añ bi dafa teel a pare. ñu bàyyi la nga soññi sa mbokki soxna yi nga xam ne yaag ñoom ñee nekkoon ci liggéey bi suba ak léegi nga gën leen bi pasteefu nañ ci ku nekk rek ci wàllu nga féete yaa ngi cay yi soxna yi moom maa ngi leen di soññiwaat ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax gën a takku laxasaay te xam ne liggéeyu sëñ bi moom amul tànki ginnaaw tànki kanam kese la am di leen gën a soññiwaat bu baax a baax ñu ñëpp jàmbaar lañ wax dëgg yàlla ca si ba tey ñoo ngi fi dëgg yàlla. jullit yi bokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo jàkkaarloo ak ñun di ñu seetaan ci seen site bi di TV Assane jàkkaarloo ak euh, Info 7 ñoo ngi am mbégte di leen nuyu tey jii ci euh, alxames ji fii ci euh, jumaa ju tedd ji nga xamante ne bii mooy jumaa ji nekk Touba di jumaa yi Seexul Xadim ci bis bu bi nga xam ne moom la Serigne Touba Cheikh Mahamadoul Mountakha woote mu di. bisu xasida yi yaakaar naa nag mbokk yi tey jii Cheikh Mamadou Mountakha eh, sunu borom defalaat na ko ndam waaye waat na nag ñi nga xam ne ñoo yëkkati woon ay kaddu di wax ndax yaakaar naa ne lu toll ci weer wala ñaari weer ci ginnaaw adduna bépp ngi naan Serigne Mountakha dafa war a yëkkati kaddoom wala dafa war a wax wala kilifa yi diine yi dañoo war a wax mu am jamono joo xam ne ndax boo ci waxee dañ la dégg déedéet am jamono joo xam ne ndax boo ci waxee daañ la déglu déedéet. jamono ji nga xam ne boo ci waxee ndax daañ la dégg mooy jamono joo xam ne bu coow jibee kenn ku nekk di yuuxu yëkkati sa kàddu booy dee wax ci biir wax jooje kenn du la dégg ndax ñu la ëpp kàddu day wax kon nooy def da ngay bàyyi bañ na teg boo waxee ñu dégg la ndax daañ la déglu mooy bu ñaar meree di xeex kenn ku nekk di dóor te la nga jàpp mënagoo koo bàyyi boo leen dee wax duñ la déglu looy def mooy da ngay bàyyi bañ sonn nga téye ñaari loxo yëpp boo waxee ñu déglu la sëñ Muntaxa nag noonu la def jamono ji toll nga xamante ne bi àdduna bépp la joon dafa bàyyi waaye ba muy wax nag kan lay waxal mooy yàlla borom bi subhaanahu wa taala mi nga xamante ne bi ndimbal ak yërmande ci loxoom la rek la nekk moo tax mu woote woon bisub sikkar bisub sikkar bi barki démb lañ ko jàll muy baatub laa ilaha illallah laa ilaha illallah mooy boo ko xasee wax ci saw làmmiñ tabbi nga ci diiney lislaam boo ko nanguwutu wax bokkoo ci diiney lislaam kon woote na bis boo xam ne bisub tawhid la mooy di waxal yàlla na ko amul benn buur bu yeyoo jaamu bu dut yow loolu yaakaar naa ne surna la boo xam ne seex Muhammadul Muntaxa moo ko woote waaye sëñ Tuubaa rek moo ko jëkk mooy bis boo xam ne lu mat fukki junniy làmmiñ àndandoo nañ di wax naan yàlla amul benn buur bu yeyoo jaamu bu dul yow yaakaar naa ne loolu surne bu ko gën a màgg ci taw tawhid amul sëñ Muntaxa jóge waat fa dëggalal sunug julit waaye dëggalal sunug aju ci sëriñ Tuubaa mu ne nañ wooteel nag ginnaaw tudd nañ yàlla tudd màggam gi kañ ko bàkk ko ci nguuram gi léegi nañ delloo njukkal soppeem ba di sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu woote surne xasida xasida yi lañ moo ci ne mooy tagg yonent bi julli ci moom def ay istixfaar yaakaar naa ne tey jii li nga xam ne tudd nañ ko ci turu yonent bi alayhi salaatu li salaam ñaanalaat yonent bi di julli ci moom yaakaar naa ne kenn xamul nu mu toll te nag sun borom ne na inna allaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabi yàlla ak ay malaayikaam ñoom dañuy sabbal ci yonent bi di ko tudd turam wa tey ji yaakaar ci la ci ci Touba liñ fi tudd turu yonent bi liñ julli ci moom boo doon seet ay millions yi millions yi yoon lay doon yoo xam ne Cheikh Mamadou Mountakha moo ko woote. kon journée la boo xam ne journée boo am njariñ la yaakaar naa ne àdduna bépp war nañoo delloowaat njukkal sëñ Mountakha sant ko ci lii nga xam ne defal nañu ko mooy wut surne boo xam ne yàlla rek lañ ko jagleel. waaye wutaat surna ba ci topp jagleel ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam te mooy xasiday sëñ Tuubaa yi te nag amul lenn lu gën a màgg xaside yi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa waxal boppam ne bu fekkee dangay ngay laajte sama karaama bul dem ci sama jëf bul dem ci samay wax looy dem mooy demal ci sama mbind sëñ Tuubaa nee na li ma leen wax du li ma leen wax du karaama li ma jëfanteeg yéen du karaama ana lan mooy sama karaama karaamati xattu ya di la wax nee na sama karaama mooy sama mbindum loxo mi mbindum loxom sëñ Tuubaa mooy delluwaat di tudd yonante bi alayhi salaatu wasalaam di julli ci moom waaye nag di di sàbbaal sun borom subhaanahu wa taala kon yaakaar naa ne tey jii fii ñu yendu journée la boo xam ne journée sociale la mooy yàlla nee na du ngeen am li ngeen gën a bëgg mukk lu dut ne da ngeen a fab li ngeen gën a bëgg jox ko yàlla nit ki lim gën a bëgg mooy lan bakkanam lim gën a bëgg mooy lan mooy alalam waaye tey jii boole nañ sunu ñaq boole sunuy alal nga gis naaj wi ni mu tànge gone yi jënd ay camions ndox ñenn ñi jënd ay glace ñenn ñi defar ay sandwich ñeen ñi defar ay jus ñenn ñi togg ay añ ñuy tasaare ci mbedd mi kaay lekk ngir yàlla kaay ngir yàlla boole koog di tudd yàlla ak di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa ne loolu boo doon seet doo dégg fenn foo xam ne fekk nga ko fa fudut fi nga xamante ne bii moo di eh, fii nga xam ne moo di Touba. bu baax tur bi naka la fan nga jógee ñëw. Baye Sall tudd maa ngi jógee Darou Minam Taïf ñëw fii ci bisi xasaayit bi am kontaan lool am mbégte lool ñu sant yàlla bu baax bu ñu yàlla booleeg bu ñu juddoo rek fekk suñu waajur nekk ci yoonu rek suñuy mag suñuy kilifa yàlla suñu borom boole ñëw ak suñu Muntaxa Mbàkke mi nga xam ne borom tawféex la te du woo kenn loo xamante ni dalay lor wax dëgg fa yàlla ci lu baax rek la ñuy woo lu baax la ñuy digal chaque jour lu baax la ñuy la ñuy soññ daal ñu gën ñuy gën a jàpp suñ bopp suñu bopp di gën a góorgóorlu waaw di sant yàlla nag bu baax a baax a baax di sant bis bi te xam ne bis bi bisu mbégte la lépp lu ci waay def sa bopp nga ko defal te yàlla suñu borom nga ko defal. ñoo leen di siyaar wér. tur bi naka la ak foo jógee ñëw fii. Serigne Maguette Sène Touba Oumoul Khoura. waaw ñoo ngi rafetlu teewaay bu baax di ñaanal si Mountakha si borom gu doo fanam lool te wér ko barke Serigne Touba ndax lii réy na lool barke Serigne Touba ñu woote ñëpp teew rafet na macha allah kon daal si Modou Xaaba si ak si borom gu doo fanam lool te wér ko bak Serigne Touba Mbacke ñu yàkkaa teewe bak Serigne Touba yéen tamit si borom gën leen a dëgëral ma ba ngeen gën a leen bëgg si léegi Serigne Touba si borom dafa leen li ko seen yor bak Serigne Touba table baay mbeng laa dëkk tey jii nga ñëw fekkee ci bis bi ban yëg-yëg nga am ci bis tey jii ma ñëw ba samay goro demee marché ma ubbi télé bi xool ko mbooloo mi fees dell ma bàyyi leen seeni gone ñëw ci jumaa ji ngir ndigalal sëñ Modou Moustapha nee na nañuy ree tey kaf tey jéggalu tey baalonte àq te lépp luy lu bon nañ ko moytu tey digle lu baax tey tere lu bon bis bi yàlla nañ ngeen ko yàgg a teewe ci barkeb Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam wa ala Seydina Mohamed ci barke sëñ Fallou. waaw ñu ngi lay ziar baax a baax. tur bi nan la fan nga jógee ñëw fekkee ci bis bi. aw fay laa tur maa ngi maa ngi dëkk Janatu daale sëñ Touba Mbacke be tey nga ñëw fekkee ci bisu xasida yi ban yëg-yëg nga am bis bi nga xam ne moom la sëñ kontaan rek kontaan rek bàyyi sëñ Touba kontaan ba xaw ma sax lu may wax moo tax sax instant yi ma lii na yàlla bis bi nag bis bu rëy la sëñ Mountakha Bassirou nag ñoo ngi koy ñaanal mu yàgg fi ta ànd ak wér ak bépp jullit ñu yàgg ko def yàgg ko teew kontaan na daal sama xol sedd na daal yéen ñi tamit yàlla leen fi yàlla bàyyi balaa déwén bu déwénee ngeen yàgg ko def maa ngi koy ñaan si daraje Sidina Muhammad barke si Fall. fan nga jógee ñëw fii. man Touba la fii laa jógee Gédé laa jógee Soxna Khady Gueye. macha allah bés bi moom macha allah neex na lool macha allah waaw moom moom sëñ Touba moom kenn amul fayam moom xam naa ne nag euh, lii moom euh, seet na suñu xol lool macha allah waaye nag euh, yéen ñiy def liggéey bi jërë ngeen def liggéey bi neex na am na solo barke moom Serigne Fall kontaan nañ lool. man nag sama xol dafa sedd ba nga xam ne moom wax dëgg yàlla moom wax moom daanaka mënu moo ko moom barki Sëñ Tuubaa Mbàkke xol dafa sedd jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf macha liggéey ba am na solo. di leen wax ne bis bii bis la boo xam ne bis bu ñëpp war a topp la bis bu baax la wax dëgg fa yàlla bis la boo xam ne nit mënees na see amee lu nekk ñu ko fi sàkkoo tamit lu nekk parce que Tuubaa lañ nekk waaye nit ñaa ngi jóge fu nekk di ñëw. waaye ku nekk rek ak foo mën a nekk bu ne bis bi rek daa war a ñëw nga gën a jege si ak loo sori sori léegi nag ñuy wax ne bis bi lépp lu ci waay def incha allahu taala doo ko rëcc bis la bis boo bis la bis boo xam ne képp koo xam ne ak ci loo mën a nekk lu mu ndaw ndaw téese te xam ne ci jaamu yàlla gu rëy rëy nga nekk parce que xasida yi nga xam si ne moo tax ñu woote ko xasida yi tuubaala Tuubaa la waaye moo ko moom te loo Muhammad moom yàlla moo ko moom moo tax bis bi ak fu waay mën a nekk di ko teewee muy murit tijaan xaadir laayin ak bépp commune ku mu doon rek teew ci wax dëgg yàlla lu rafet la ñu ngi koy siyaare nag sëñ Muntaxa Mbàkke bu baax a baax di wax ne yéen nañu tiyaaba bu baax a baax yéen nañu tiyaaba lool lool lool lool ndaxte lii wax dëgg yàlla ay tiyaaba kase la dajale ay nit ne leen nañ soobu si menn mbir moo xam ne dañ ciy jaamu yàlla loolu la képp ku fi ñëw jaamu yàlla moo la fi indi ak su loo mën a nekk for mbuus joxe kafe ak joxe ndox ak toggi añ ak lu mu ci mën doon rek na kenn ku ne rek fa nga ko yaakaar ak fa nga mën a jaamu yàlla ci côté boobu nga def ko te xam ne benn bis la bu jàllee jàll na asalaamaaleykum ñoo leen ni siyaareen ñëpp. waaw kontaan nañ daal bu baax a baax te xam ne depuis démb ba léegi mu ngi mel ne démb la woon af démb la woon journée bi ndax sëñ bi daa woote rek jumaa ji fees dell jumaa ji fees dell daal démb oto yi sax amu fuñ jaar ndax. mën naa ne sax nit ñi fi lañ fanaan ndax ay 5 heures du matin man ñëw naa fi fekk jumaa ji fees dell waaw man maa ngi dëkk Daaru Karim man Daaru waaw Daaru Karim laa jógee ñëw si bis suñ Muntaxa Basiir bi kon ban yëg-yëg nga am bi nga ñëwee si bis bi nga xam ne moom la Serigne Muntaxa woote muy bisu xasida yi nga xam ne nii ñëpp si ndaw ñi bu ñu xëyee dañuy duri xasida tey jii sëñ bi woote bis boo xam ne ñu xëy di jàng xasida suuf ba ngoon ñun moom man de man daal moom kontaan naa lool daal moom ngir mu bokk ci région Louga ji ñëw ci sunu xasida bi ci suba ndax ngir jëmmi sëriñ Touba rek ndax ñun Serigne Touba jaaral nañu lu nekk ndax lu ñu mën a am ci àdduna wax nañ mën nañoo wax ne Serigne Touba moo ñu ko defal lépp lu ñu mën a am ci àdduna nañ xam ne Serigne Touba moo ñu ko defal kon bu wootee tey fépp murid nekk dafa war a ñëw teewee si bis bi di bisu xasida yi ban yëg-yëg nga am bi nga ñëwee si bis bi nga xam ne Serigne Mountakha woote na ko ren su ma juumut mooy ñetteelu édition wala ñeenteelu édition. wax dëgg yàlla am nañ ci contacté lool ak mbégte lool di ñaan nag yàlla na ko yàlla defal mu sax bi yàgg fi lool te wér. ñoo ngi siyaar bu wër a wër ñoo ngi sant Serigne Touba ak Cheikh Ibra di sant Cheikh Mountakha mi nga xam ne dafa yor pusoom bii rek ndeysaan di ñaaw rek ah, ñu nekk fii nag jàkkaarloog jumaa ji jàkkaarloog Serigne Saliou ci soxna Lamp mu miñ denk sëñ Bousso mi sëñ mi sëñ Saaliw doon naan yow dama seet ba seet ne bu so yow malaaka nga kon ñoo ngi ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke yal na fi yàgg te wër di ñaanal sëñ Moodu Mbenda Faal yal na àggale naale li képp ku fi ñëw daal loo fi ñaan rek yàlla la ko sëñ borom defal ci taw tawfee ak ngeneel suñu xool sedd na guy yéen ñi itam dekkal ñu seeni micro yal na leen fi yàlla bàyyi saxal leen fi ci doole sëriñ Saaliw Mbàkke di am mbégte ci bés bi lool di sant sëñ Muntaxa di ñaan suñu borom subhaana taala mu yàggal ko suñu kanam ndax uh, lii mu woote nii mbégte la ci ñun waaw kontaan nañ ci xasiida yi waaw am nañ ci mbégte lool waaw ñu ngi gërëm ñëpp mbokki taalibe yi fi teew di leen sant di rafetlu uh, njàng meek sikkar seek léegi laa jóge ci sikkari Baay Faal yi Baay Faal bi tim ba ma fa taxaw sama yaram daw la lool moo xel ci dem ci suñu jàmbaar yi Cheikh Ibrahima Fall waaw kon naa kontaan naa lool ci bés bi di ñaan sëñ taxaa di ko woote ay bés yi bés di ko fekke mu gudd fan te wér lool ñu ñaan suñu borom subhaana taala mu bàyyil ñu mu yàgg fi lool ndax suñu mbégte la ñu ngi koy ñaan ci bi jaay Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yow fan nga jóge ñëw fii nii Touba nga dëkk wala feneen nga jógee ñëw ci bis bi. man fii laa dëkk Touba fii laa juddoo fii maa ngi dëkk Sàmm Sëñ Baara Khuraja ci boo paasee Madiane waaw foofu laa dëkk. jërëjëf ñu bàyyi la nga def sa kàddu yi mujj rek tàggoog mbokk yi lay seet. waaw kàddu yu mujj comme ni ma ko waxee rek di ñaan sëñ sëñ Muntaxa mu yàgg fi rek ndax sunu mbégte la. man maa ngi jógee Njaañ dëkk bi naan Njaañ foofu laa jógee ñëw bu màggal si. sunu xasida bi sunu xasida yi di wax jërëjëf sëñ sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba ñun amuñu ku dul sëñ Touba sëñ Touba lan am yaakaar moo tax tey ñëw màggal si di siyaare ñëpp nag di ñaanal ñëpp képp ku ñëw ku ñëw yëpp ñu ngi lay ñaanal di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakaatu. waaw man maa ngi jógee ba Njaañ si woote woote ki nga xam ne mooy ku tedd ki fi nekk ak Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg te wér ñu ngi sant bu baax lii koo gis xam ne Serigne Touba amul morom Serigne Touba mi ñu yaakaar tey ëllëg amul morom ñu ngi leen di sant bu baax te xam ne mbooloo mi bari na lool nag. nañ jàpp na yeneen yi ñëw yal nañu yàlla may fekk ak tal yeneen yi ñëw mooy dàq fuuf si barke Cheikhna Ahmadul Khadim waa ñoo ngi taxaw nag si buntu ki nga xam ne buntu kër ak Cheikhna Mouhamadul Saalihu Mbacke moom mi nga xam ne mooy borom li xaaditil ujuuri wal masaalihu bi tey wal jas wa inni saalihu Serigne Saalihu nag ñun yàlla dafa def na dañoo bokk ci ay ndawam bi ñu yàlla nattoo ñu jamonoonte ak moom moo waxoon ne ñu waxoon ne képp koo xam ne jamono dëngaay ak Cheikh Serigne Saliou Mbacké sa yaram aram na sa kon ñoo ngi sant bu baax di am tawfeex bu baax di am mbëgte bu baax yàlla nañ ko yàgg a fekk. jërëjëf mbokki internet yu info 7 comme niñ leen doon toppalee bis bi nga xam ne mooy bisub xaside yi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha moo ko woote woon tey jëlee ci alxames gi yemoo ak fukki fan ak ñett ci weerum juillet atum 2023 lu nu mel nag du ren la ko doog a woote ndax ren jëlee mooy doon ñetteelu édition ginnaaw bi nga xam ne ko nañ ne at mii ñu nekk rek di 2023 bile mooy ñetteelu bis Cheikh Mouhamadul Mountakha di woote bis yi ndax bi si njëkk di door si la woote bisub jàngub alquran loolu ñu def ko sunu borom daal di wàccee ndox moo xamante ni nawetub jàmm ak salaam lañ ci doon ñaan bi si topp si semaine bi la ñu génn mu woo sunu mbokki Baay Faal yi ñu amal bisub sikru la mooy tagg allahu subhanahu wa taala di ko bàkk li ko dalee juróom-ñetti waxtu suba gi ba ci ngoon gi ginnaaw loolu nag mu woote bisub li nga xam ne mooy xaside yi muy bis bi nga xam ne dañ ciy taxaw di jàng li nga xam ne moo waxoon ne karaamaatu xatiyat yi ndax moom maam si loxoom la ko bind mooy xasida yi nga xam ne moom lañ doon jàng suba ak léegi nag fii si jumaay Touba kuréel yu bëree bëri nekk si waa Hizbut ak yeneen i kuréel sunu mbokki Baye Fall yi ku nekk ngeen gis ni leen ko doon toppalee moo xam si waañi ñi nga xam ne nekk nañ ci li nga xam ne doon togg ay xéwal di ko joxe ak ñeneen ñoo xam ne ñëw nañ fi doon amal ay durus di jàng di màggal bis bi di ko dundal lépp nag ñu daan leen ko toppal fii ci Info 7 ànd bi kii di sëñ Bàcci ak kii di sëñ Mañang waaye di ñaanalaat Cheikh Mouhamadul Mountakha Bassirou Mbacké mu yàgg fi lool fanu gudd ànd ak wér naal yi mu naal ngir liggéeyal ko maamam ji Cheikh mu matale ko kon mbokk ñu ngi leen di gërëm di leen sant mu nekkoon Keba Diallo fii si jumaay Touba bisub xasida yi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha moo ko woote woon pour Info 7 TV jërë ngeen jëf xasaayidi min mujizatil Mountakha salla alayhi man